fier de notre ouais. pays. alors une dernière question pour tëj euh, étude de cas boobu. Euh, en cas de démission et au cas où le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim bu ñuy bu waree organiser élection bi il garde la liste des candidats bi conseil constitutionnel validé. bien voilà, sûr bien bien sûr loolu dara dara du changé. dara du changé dara waaw waaw non non mais dara du changé lii ah. conseil constitutionnel def nit dootu yi sinon sinon da ngay obligé modifier la la Cour suprême mais dans la nouvelle loi mhm. annulé bi fi te conseil constitutionnel mhm. assemblée bi voté beneen loi organique mhm. daal di wax si biir loolu que lu conseil constitutionnel atte dindi naa ko mais ça c'est gravissime. désavouer le conseil constitutionnel. non du désavouer annuler d'une modification. moo yu dis yooyu du ma ko utiliser. Mhm. annuler les la décision du conseil constitutionnel par une loi organique mais c'est gravissime loolu kenn du ko def ñoom dañu sunu démocratie mooy dellu ginnaaw ne faraxati liñ àddina bi yëpp dal ci kaw Macky Sall. loolu àddina bi yëpp di dal di ci kaw Sénégal di dëkk bi dootuma ko wóolooti du ma fa yóbbu sama alal du ma fa def dara mm. yéen tam vous n'êtes pas compte de ce qui risque de se passer loolu mooy risque bi fi mu nekk nii gis leen dëkk bi ni mu mel mm-hmm. lu tax monde bi yëpp dal suñu kaw le pays est un pays pétrolier le pays est un pays gazier le pays a des zircons le pays a des ceci le pays a des cela on a on a besoin d'argent borom xaalis ak ñuy xalaat nit ñaa ngi ñëw ah, chinois yi di créer entreprise di ñu xëy suba jaxase dëkk bi ñaari weer ku nekk téye sa loxo ñëpp téye seen loxo ñu dëkk Sénégal ak ñu dëkkul Sénégal waaw mais yow ñan mooy embaucher suñu doom yi dafa nga suñu doom yi xëy su am liggéey. ñan ñooy investir. mais écoute man su ma embauché wul yow embauché woo keneen embauché woo chinois bi embauché wul américain bi embauché wul kuy liggéey mais ñooy embauché bu ñu téye seen loxo Sénégal de mais ñooñu ñëpp dañuy toog seen kër ne man du ma yóbbu sama alal dëkk boo xam ne bés bu nekk ñu sensé. un pays insécure. bés bu nekk ñu sensé du ma xam ko yore ma fa yóbbu sama yëf man liggéey ba màgget di ko fa def loolu yaay def loolu mais alors pensons à notre pays pensons à nos enfants kenn amu fi légitimité bu mu yàq Sénégal candidat candidat la nekk naa ñaari yoon candidat lan la maa ngi fi toog candidat yi bu ñu dee vingt bu ñu dee vingt dix-neuf yi feex ñetti weer ñu toog fii kenn moo si gagné lu mm-hmm. dëgg waaw fi ma toog foofu lañuy ñuy toog rek fi ma jaar la ñuy jaar baatar nañ la nga ñibbi sa kër lan la rayanteel ba gagné mooy wax ji fi mu nekk lu part ñu résumé pour man le président Macky Sall et son assemblée nationale def nañu erreur ba voté loi ak décret ma contre que ñëpp contre loolu conseil constitutionnel dindi na ko tegal ñu condition constitutionnelle et de principe yu am njëriñ teg ñu si yoon boo xam ne da nga koy boolee constitution bi président Macky Sall la organisé waxtaan ak ña muy waxtaanal moo xam ñana jàpp ay date fixé datam ñu dem élection ko gagné mu toog ne ko léngee yaa ngi jël bagage sam yoonam bëggul Sénégal mooy wax leneen wolof la ku jiital boppam fàtte réewam mooy wax leneen ok dama lay bàyyi nga continuer. non kon jeexal bëgg wax. dama nga yokk ci. lu ma si yokk ci. dama bëgg nga yokk ci. <laughs> nit ñi dégg parce que non politique laa. waaye dañu nar a sànq ci Mali foro. ku fi dañ nar a sànq réew mi. mënuñu sànq réew mi ci Mali foro dinañ dinañ noppi parce que li ñuy wax ah. taxawul fenn mais politique yëpp laa wax ah côté yëpp ah. attends li may wax man waxuma opposant yi de opposant yeeg ñi faral Macky laa wax des ñëpp laa si boole. ce qui serait tenté. parce que débat yi may euh, dégg si ñaari côté yëpp. benn sens la jëm. ku nekk ngi naan 2 avril cinquante avril président Macky Sall en bas vive lui loolu wees na. débat wu 2 avril jeex na tak ku ko fi mënti wax nekkul si dëgg parce que yaa ngi violé constitution bi yow sa bopp wax ku ko fi mënti wax da war a suivre processus. bii rattrapé date yi bii rattrapé de temps perdu ba fu mu la indi rek président bi nekk en fonction assuré intérim bi jox waay ji mu dem yoonam mu jeex ku waxul loolu wax foo côté boo man ti féete nekkoo si dëgg. léegi da nga nekk si la neex. dafa am ngay neexalaate nga contraté.